bi ndekk ab gendarme la ci la génne yor fetal moom tima waa ji nga xam ne ab sàcc la jaasi yoroon daal di ki nga xam ne mooy gendarme bi gendarme bi moom tim daal gi nga xam ne moom la yoroon journal bi nee na loolee la ñu doon àtte ni moom la ñuy joxar bi baaraamu tuuma ne ab sàcc la yoroon li nga xam ne mooy jaasi kookee nag nee nañu nañu ko tëj lu toll si ñaar fukki ati fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril wi nga xam ne moom la ñu dëgmal la lépp di leer yéenekaay gi di Libération ñu xëy fekk fa Guy Marius Sagna nee na enregistrement yi nga xam ne jamono mooy jaaba jonge génne ci internet bi joxar bi baaraam mu tuuma Mamour Diallo ana ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon lan la xaar ngir nag woolu ki nga xam ne mooy Mamour a moom Guy Marius Sagna daat nay wax ne doyen des juges moom nag su bëgg naa crédible na convoqué mbooleem ñi nga xam ne tudd nañ leen ca enregistrement yi nga xam ne jamono ji nag mooy firndeel ab complot boo xam ne def nañu ko Ousmane Sonko ab complot national ak international na nag li nga xam ne mooy audio yi fuité loole nag mën nañoo bañ a jàpp ne ay Eh, waaye nag mën naa influencer bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy askan wi mën naa yey askan wi maître Ousmane Seye daal di wax ne am réew kenn nu koo tabax nag si ak pëccëxoo yéen kaay gi ñu koy fekk fa maître Papa Djibril Kanté avocat la baro bu Québec ca Canada moom avocat bi di maître Papa Djibril Kanté nee na gars yi dañu ko laaj naka Mamour Diallo ana lan moo ko mën a fekk ci nag enregistrement yii nga xam xamante ni mooy jàpp a jóge ci internet bi moom maître dafa daal di wax ne benn at jàpp ñetti ati na see fekk Mamour Diallo ndax 159 dafa wax lu leer mbir bu nekkee ci yoon maanaam ci procédure maanaam ngay jéem a neexalaate wala ngay teg pression wala ngay dànkaafu di menacer wala na ngay joxe ay promesse di diggaate loole nag ci boppam ngir nag mën a tax kookee mën a def ay déclaration yoo xam ne du dëgg yow mi nga xam ne yaa ko doon def pression boobe nag wala promesse yooyu wala menace yooyu di ko dànkaafu yoon mën naa dal sa kaw bu baax a baax journal bi di le vrai journal daat nay wax ne jamono ji li am ba desal mooy mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu ñu waxantee dëgg Ousmane Sonko moom ci kanamu askan wi moo amagul ndam yéen a kaay gi di réew mi ko di cee nee na Ahmed Aïdara daan nay tekki ndombal tànkam fi nga xam ne mooy des médias daan nay démissionné journal bi nee na ndax nag du Bougane Gueye Dany moom si boppama maanaam moo bàyyi Ahmed Aïdara sampalaaj yéen a kaay gi de la Soleil ñu xëy fekk fa Aminata Touré nee na nag gars yi nañu ñu waxante dëgg waaye nag élection législative yi ñëpp xam nañ ne su dee parrainage amula maanaam élection yu jaar yoon élection yu sérieuse kenn mënu koo amal fi nga xam ne maanaam mooy ci réew mi a ñàkk Aminata Touré yéene kaay gii di critique xëy nag sa Pape laa ca nee na Pape Diop bu bokk gis-gisa ndax Pape Diop jamono ji nag du gloria ndax nag Pape Diop ak Macky Sall jamono ji seen diggante neex na loola ci 4 avril bi sax Macky Sall daan nay décorer Pape Diop yéene kaay gii di la sa nee nag député yi dañu koy yokk député yi ci Sénégal dañu koy yokk maanaam lu toll si juróom ñaar ci ay député danañu ko yokk ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ndax nag député yi 165 la ñu woon léegi nag danañu ji ji feneen la nekk ndax xam ngeen ne sax député yi maanaam seen der yàqu na yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar nan ñu Macky Sall ana nan lay def ak élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loole nag Macky Sall jamono ci mbir moomee moo ko teree ne law ndax nag élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn Macky Sall ñi mu yaakaaroon ñëpp di ay kàngam ci biir Benno Bokk Yaakaar ñooñee nag dañu leen a dóor dóor yu métte métte te nag jamono ji nga xam ne élection législative yi nag ma ngi waaj am jamono ji dund gi dafa ba maara de tale askanu Sénégal bari di jàmbata manquement yi nga xam ne moo am ci wàllum bonne gouvernance maanaam yorin wu jaar yoon te Macky Sall na jamono ji dafa mel ni yitteem jëpp nag mooy toroxal néewal doole ñi nga xam ne ñooy opposition bi te jamonoy 94 milliards yi mu ngi nii na fàng te amul benn jéego mbir mi demul ceng dikkul mbay laara ana lan moo tax mbiri 94 milliards yi maanaam lijjanti wuñ ko te nag bëri na ay rapport yoo xam ne af nag daan na koy jox procureur te ba léegi nii maanaam maa ngi nii kenn waxu ci dara yéen a kaay gi di réew mi ko di cee xëy jamono ji ma ngi di gu bët séddiku la niki démb naka maanaam dig la fanaana maître Djibril War moo ko porte plainte yéene kaay gi di libération nee na Cheikh Omar Diagne tey jii dina jàkkaarloo ak procureur yéene kaay gi di Walf Fadjri ñu koy fekk fa Mamadou Lamine Diallo honorable député Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na nag jamono ji li nga xam ne moom lay sàkko maanaam ab commission d'enquête ñu amal ko ci li nga xam ne mooy suukar si ñuy bayee ca diwaanu Richard ngir nag mën a xam solo si nga xam ne importation bi am na ko ci sunu koomum réewa ndax nag moom Mamadou Lamine Diallo nee na jamono ji naka nemmeeku na askanu Sénégal nag dañoo sonn ba maara de tali bëri na ñoo xam ne yor nañu seeni lijaasa te amuñu liggéey yéen kaay gi de Le Quotidien xëy dañu ñu naa ñu pii coow ak mbaaloo coow lu rëy am na ci anam bi nga xam ne moom la ñuy gracier yéen kaay gi de Le Témoin xëy dañu xibaar naan ñu ci 4 avril bi dégg nañ président Macky Sall wax armée bu Sénégal na leen nag wéyal leen li nga xam ne mooy opération yi nga xam ne moom ngeen doon def ci Casamance est-ce que nag bëgg-bëggu Macky maanaam du teg loxo ki nga xam ne mooy Salif Sadio moo xam dañu koy teg loxo muy